réussi voilà loolu la rek. mais mbiru alternative dafa mel war na mën am na alternative comme kii ngi fi ah, Sa Thiès ngi fi te gis naa keroog mu tëkkante ñun ñaar ñu tegante dënn ah nga xaw ko kor xam nga yow gars yi da nga leen di da nga leen di peese kii kii saali ci ngént kii gis naa nga peese ko foofu noonu <laughs> ndax changement mun na <laughs> non <laughs> ah, nga non nga Sa moom gars yi ñëpp la ah, Sa Thiès moom day reew sonn quoi danaa maalu sut ma xam nga man ñu ci bëri yàq dama gàtt gàtt ko ëpp quoi léegi nag mu ñëwee taxaw mal sut sutoo ma ci lañ taxaw ku nekk di xool waaw loolu du question de natt wala dara xam nga mais sûrement xam naa ni kon dañ dem balagante rek première fois deuxième fois mu gisaat mi di wax loolu loolu quoi parce que njëkk nañ ñu ñaar xam nga yee eh yow maalu sut ñu taxaw xam nga bii de boobu mooy deuxième fois rek fu mu gisaan ah. mais xam naa ne moom moom ñàkkul ne am na loo jàng foofu ak sa expérience. non yàlla xam ne bàyyi ma xel loolu nag fekkee man moom saa yi dama direct quoi bàyyi ma xel natt ma ko sax wax dëgg yàlla. non du ma ko natt parce boo doon natt kay xanaa gars yi ñoom Bombardier ñi def ay tabax gars yi nekk ay deux ci kaw kay xanaa ñooñu ngay ngay xama waaye mais natt ma ko de. Ah, ma ko natt ma non man benn taay jaaxaloon parce que dama am mbapat. naa dama bëri ba léegi changement ndax mën am la. <laughs> Lamine pour mu clair man dàqu ma benn combat. bëri Euh, guy gi tam démb def na déclaration démb bi ñu invité maa moom nee na ma promoteur bu ma woo ne ma Eumeu seen dama naan ko waxal ak Eumeu seen bul waxaale man même boo ma fayee njëgu taxi njëgu taxi njëgu taxi rek nee na ma ñëw bëri Eumeu Sène te cinq secondes laa ko may maay diriger maay def li may def te li ma bëgg mooy am démb wax na ko ñëpp di ko seetaan guy gi moom xaw ma nag ma fu ma làq na ko wax de. Ah, waar. waaw xam nga lu ma lay wax rek combat yi moom dàq ma benn combat. muy guy gi muy tafaatin. muy muy mu yaaw jaal xam nga. dut saane wala Tyson deux sax ma ko jox Jules sax ko jox bëri. <laughs> Ah. sama doom. Ah. <laughs> pour bu leer daaxuma benn combat xam nga sama combat avorté na beneen combat buñ ma seet si rek mu yi wax ma ko damay bëreeg moom. waaw kon Gaston production bu a tëgg jox beneen adversaire le pare. naa pour combat yëpp kon ma ko expliquer rek. waaw pare naa pour pour bëreeg combat yëpp ah combat bu gars yi dox rek mu ñor leen pare naa pour bëreeg bii moom tamit aussi maa ngi wax yóbbante boobu amul benn problème combat bi moom ci pour promoteur yi la desee muy moom non ñoom ñëpp pare naa ñoom pour ñëpp pour combat yëpp koñ ma ci dox rek fay ma du ko jaar rek xam nga waxtaan suma estaf damay ñëw pour xam nga yeggali suma lii quoi mm-hmm. waaw awma ci benn kenn ku may nit ñi wala nanga pare naa pour combat yëpp daal yaag tafatin nag mooy li gën a ñor moom hmm. ku ñu wax ko wala ñu bañ ko wax yaag tafatin adversaire yi nga wax mooy adversaire bu fi gën a jaadu hmm. combat jànq la hmm. yaakaar naa ne bu mu duggee ci seen biir yàgg na ba léegi mosu leen a waaw gis nañ daal wiiri wiiri da ci am xaw ma yow yaa koy daw. xaw ma sa staff ñu koy daw. avant Balla na taxaw. lu jege lu ndaw jege woon na ko. waaw xam nga di topp kaa ñun. ba ci biir mu yàquwaat. mais lan la parce actuellement même revue de presse la ñuy wax Eumeu Sène Tapha Tine. waaw mooy lu mu rek dàq mu benn combat. nga choix de bi pas ak. ñëpp. combat bu ñu promoteur mooy ñu ne sangam laa bëgg. ku ñu yónnee ma combat bii lañ bëgg a tëgg man pare naa pour bëre combat bu point daaxuma benn combat sama ma ak Tapha Tine combat du ko daax. ndax machine ko proposé. non si proposé ma muy bëreeg Bombardier man la waroon nañ ba déggoo mais par la suite que Gaston production xam nga ak père père xam nga lu ñuy ñaan tamit suñu père la. boo ñaaree sa loxo ne lii laa soxla dañ koy def. waaw toujours su loolu loolu moo tax ma toog un di xaar benn combat bi parce que père moo tëgg sama combat ak Balla Gaye ba pare am lu mu ci bëggoon du dëgg. ñu koy ñaanal yàlla nag mu tànn ak jàmm xam ma mu ñëwaat parce que nam nañ ko trop suñu papa ji ah yàlla ko yàlla may tan yàlla ko yàlla may wér xam ma may ko ko may ko njabootam gi yëpp moom suñu père la moo tax ba mu ñu ñaanee wax ak ñun maka na ngi teew ñëpp toog ñoo ko ñëw combat bi la ñuy dox na yëg nii la demee mu ñaan ñu dañ ko may loolu mais man dàquma benn combat mag Tapha Tine dina am xeex dina am bëri dafay neex combat mënu ko daaxee mag non combat boobu combat bu neex lay doon. dina am xeex force. non dañuy xeex ñu bëre yeneen combat yi ne suñ kanam yëpp itam combat yi neex la man combat suma kanam yëpp combat neex la parce que dama bëri ay adversaire ci làmb ji. ci ak Tapha xeex bi nga wax xeex bi mu day sëq sànq wala nappaaje ñaari baax neen tamit day nappaaje nee na ku ko ku ko jël mu nappaaje la. waaw waaw non man moom façon wax yooyu moom mënu ma ci sori parce que ku ma xam-xam ni mënu ma mënu ma euh, waxu wéccoo quoi. Ah. lu may def rek daal mooy respecté naa ko en tant que champion xam nga. mu ngi def ay jéego. daan def ay champion te benn mbër mënu ko bañ. voilà te defa jaadu mu laale ku mu bëgg laale ci làmb ji. parce que te tamit su da ko liggéey. di dëgg te am na ay qualité te luur bu baax la. luur bu baax waaw luur bu baax quoi luur bu baax mooy am nay sañ-sañ am nay déplacement am na ay xam nga waaw moo tax ma luur bu baax la. comprendre nga si mais nag. bàyyi ko rek gars yi dañ dem ëmb rek moom ponkal la gën a mën a bëreel. non <laughs> waaw la rek yi moom xam nga ci nekk ak sa mais dàq mu benn combat muy moom ak combat promoteur yi daal combat bu ñu ñëw mu ñor leen ñu ne ma combat bi lañ bëgg bëri lañ bëgg a tëgg. Hmm. man awma problème pare naa pour bëreeg ñëpp waaw. loolu am solo ëmm mais tamit sa sa sa sa frère Gris Bordeaux hmm. ak sa rakk Ama Baldé ñoom tamit waroon nañu bëre. tamit def na médical. Hmm. mu mel loolu dafa commencé nekk nag. phénomène ci làmb ji. <laughs> waaw médical médical médical waaw waaye nee nañ ah. yàqu de. waaw xam nga que ni xëy na dafa tombé rek quoi li ñuy ne tombé ay war ay gaafa du noonu waaw ngir itam ñu koy masawu bu baax ah, parce que moom su yàq làmb tamit aussi sûrement xam naa ni nit moom kenn du ko feebal jàngoroom ah. Mm. voilà li koy métti moom moo ko xam kenn ko feebal jàngoroom. voilà kon def na médical bu médecin yi bind ko rek man damay jàpp ni lu jaaru la quoi lu am la quoi. Mm-hmm. waaw parce que médecin tamit mm-hmm. xëy na noonu la mën a demee quoi. Mm-hmm. Euh, waaw. mais yi ñu koy saytu même bu médecin yi waatee tamit parce que parce que parfois nit day toog këram am médical ndax jotul tamit médical yi CNG di ci jël ay matuwaay. waaw loolu moom CNG la rek. parce que moom moo jiite laboratoire. Ah. pour la am. <laughs> waaw boo xam ne uniquement pour loolu la. boo indee ñu dugal ko ñu dugal ko scanner ba ñu xool ko quoi xool parce que tam af yi. doon nañ ko def ne mais mais mais mais est ce que def nañ ko ci yii parce que gis nañ Gris Bordeaux médical bi mu dugg waa CNG nekk ñu fi. Bira nekk fi woon kii nekk fi Njambe nekk fi. waaw. waaw xam nga tey ñoom tamit aussi xam naa ñu ngi ñuy saytu loolu parce que tamit aussi waruñu cuunee noonu quoi. CNG pour man waruñu cuunee noonu. voilà loolu la quoi. waaw léegi nag. ñu dem ci kii di masawu tamit di masawu tamit ama parce que boobu ba léegi tamit aussi métti na ko combat bu mu am rek waaw mu am ay ay ay affaire ci xale xam nga ci ku toll ci digg carrière war ko gérer xam nga ku ku ku famem yaakaar xam nga njabootam yaakaar ko métti na trop quoi mais tamit aussi noonu la quoi yàlla moom bu la kiwee leer lii ñëw mooy daax hmm. waaw loolu quoi man toog naa bu ñëwee rek day neex tey dégg naa roi des arènes xam nga dégg naa fi lu ne titre bu mbër di am ci làmb rek am naa ko ba am sax titre yu ñu amul. Mm. kon sant yàlla du dëgg. dëgg